suñuy jaar-jaar daal dañu nekkoon ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daanaka ne su ko xaaritoon jar danaa ko am. aboné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal foofu nga mën a aboné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. Coming Abdoulaye Mbacke ñu ngi lay dalal bu baax di xam ni ak yëg ak fonk ma moo tax mu teew ndax amoon na ngànt ndax sañ jili da doon def conférence te moom mii di magam moo yoroon kàddu ga yépp fa tabaarakallaahu ndax xam ngeen ni sunu mbokki mbàkke mbàkke yi ku mag yaay kilifa gi waaye mu ni sëñ jiili li may xat-xat sëñ Idrissa walanteeru ak njàmbaar gim def ci màggal gi su amee bis nun famille bi yëpp war na noo teew su dee nun famille bi yëpp itam mënunoo teew ak lu mu metti metti dana jaayante ñëw teewal ko ci bisam bi kon sëñ Abdoulaye Mbacke Mbacke Balla kontaan naa bég naa suma ma xol sedd na maa ngi lay dalal bu baax di la wax ni njaboot gaa ngi nii liggéey baa ngi nii la sa way juru tedd wa doon liggéeyee te mooy daawul yare dóor baatin la lay jóor ciy Mbàkke yaay góor iskay Bamba Sëriñ Tuubaa bi maanaam dex ku dem duy nga xam ne da daan nandal taalibe yi leerug yàlla ba taalibe yi màndi bay daw ci siiñu sàkket yi di fekk taal buy bax ñuy tibb di lekk di jël ay xal di ko ëmb ci seeni mbubb te du ñu lakk loole mooy li xaadimu rasul samaam tàllaloon wa asqinaa معها من ماء كوثر اخترته من جميع القلق يا الله من كان يرصد ساقي ويهلك ساق كفر وينصر من يخساك يا الله محمد مسكن الأخيار قائدنا لجنة القلد يوم العصر كن نيوغا سي سكر نيوغا سي ci طالب نيوغا سي nga جابوت نيوغا سي ñëw كولري نيوغا سي نيولا بغ kon ñëw nga ci itam yow itam ñoo bëgg te fonk leen ñu ngi lay tatagal di la dalal di la wax ni marhaban marhaban mbàkke marhaban marhaban bikun jërëjëf mbàkke sunu xol sedd na jasakumullahu xayran wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu da nga fekk ci waxtaan wi góor yàlla yi doon waxtaan di leeral baatu laa ilaha illallah ba agsi ci sëñ Saliou Diouf mii bàyyi ko ba Mbour sëñ Mamadou Lamine Cissé moo jëloon kàddu gi léegi bokk yépp a ngi nii njabootu seex Moussa ngi nii kii doomu Cheikh Moussa la ñii ay jëwrinam lañu Cheikh Moussa moomu nag baayam Mamar Khourédia Cissé moo toppoon sa maam Mor Khourédia Cissé mooy jàmbaar ji nga xamante ni moo daje woon ak sa samaam boole ko amat fa jama ñan mu tarbiye ko ba jox ko ndigal mu sanc daaru kër Mor Fure Dia moom moomu mooy wayjuru Cheikh Moussa Ndiamé borom daaru mu daan ko yebal Cheikh Moussa di bàyyi ko daaru di dox ba fekk sa maam ak di ko fekk itam Touba gannaaw bi ma Mor Khouroudia Cissé télé ba mënatul dem Cheikh Moussa di ko yóbbul lem di ko yóbbul fas addiya ju waajuram ma am jox ko ko ba Cheikhul Khadim gërëm ko la ko bàyyam waxoon ndax kero ba ko bàyyam dee yebal dafa bind leetar jox ko ko ni ko sama tuut tànk boobu Mbàkke gërëm naa ko dama bëgg nga ñaanal ma ko mu ne ko danaa def ci moom ba def lu faw xasa njort moo tax mu ne wéet naag sëriñ tubaa ay yoon yoo xam ni man ak moom ak yàlla kenn ñetteelu no moo tax Cheikh Moussa mi nu jox leeru baatu laa ilaaha illa daan wax ni wasila bambaa a ci doy waaye liggéey nag moom mbayaa ma ci doy jaamu yàlla nag baatu laa ilaaha illa ma ci doy Cheikh Moussa nee na ku ajul asamaan tàllaloo suuf doxaloo góor ak jigéen doxaloo guddi ak bëccëg doxaloo noor ak nawet jàppuma ma la ngay sans borom kii yooyu sans borom waaye wasila bi ma ko xamee mooy bamba moo tax wasila bamba a ci doy waaye liggéey bi ma dénk mooy bay njàmme nee woon na ko nag Cheikh Moussa boo demee bul tooñ bul fayu bul xëccoo ndax kuy tooñ du mucc kuy xëccoo du noppalu kuy fayu du të boo bàyyee yett yooyu saxal ci yaar wax lu baax ak def lu baax ak dëkk ja boo ci dëkkee lépp lu yàlla am ci lu baax àdduna ak àllaaxira dana la ko jox njàmme moonu moo nu jox leeru baatu baatulaay la moo nu wax loo kaddu gi moo tax nu di ko wax baag si ci sa ëtt ba nga teral noo mbàkke yal na la yàlla teral yaag sa rakk sa seen jiili guddal fan yi te wéral jëmm ji yokk xéewal yi dafa leen barke ak tawfiq sa barke maam wàcc seen kaw doole baatulaay laa illallah suñuy jaar jaar daal dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam. xanaa wax ni su ko xaaritoon jar dana ko am. abonné wu ci bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.